ñun def fii suñu nawet bi bu daaw ndox bare na mais amul njëriñ mbokk baaxul ceeb baaxul ki gerte rek moo baax tuuti dara baaxul daaw baaxul rek nag fu mu nekk nii ñu ngi ci commencé jafe-jafe bi ndox bu ñëwee fii day nekk une semaine deux semaines ndox commencé di ñëw ñu ngi ci ci digg bi baax na baaxul. bu ñu engrais du ñu doy bu ñu àndee gerte tuuti rek gerte bi bu ñu ko jëndee rek gerte bi jeex na gis nga fii jiwuñu ko gerte bi moo manqué engrais bu ñëwee du ñu sofi hmm? xam nga loolu yëpp ci yàqu nawet bi la waaw. ci affaire mbéy mi première kii wax na affaire jiw bi ak engrais bi toujours day tardé béykat nag. sa engrais ak sa jiw soo tardé xam nga yow béykat mi tardé na euh, deuxièmement bi ñun dañuy soxla tracteur jamono day dox jamono day dox dañuy soxla pour gouvernement yi jàppale ci affaire tracteur yi tracteur yi euh, pour ñu yombal suñu liggéey bi gis nga euh, daaw ndog bi bare na torop torop torop ci biir Sénégal waxuma fii ci Casamance mais ren eh, nawet bi sensé na ren moom <coughs> alhamdulilah nawet eh, ndox mi am na barke comme comme que gis nga lii yëpp yu mujj yi de mais fu mu nekkee nii alhamdulilah mais ndox mi bariwul eh, deuxième euh, problème bi ci affaire teret ñun dañuy bugga gouvernement ci jàppale ñu ci affaire traite bi xaalis bi mu teel a ñëw béykat amul salaire yàlla ak mbéy mi loolu lay teg ci yaakaaram du noonu euh, fonctionnaire bi lu mu dund tey seen waa Sénégal yëpp loolu la ñu dund affaire problème santé école problème yi bari na kenn du ko mun a lim kon nag léegi soo béyee ba traite soo fekkee dow mun a am xaalis bana bana soo ñëwee da nga jaay du noon gis nga ren ñun dañuy nekk ci problème puisque problème eh, daaw eh, nawet daaw bi sant yàlla ndoog bare na mu bare ba mu yàqu lu ñu béyoon yëpp yëpp presque daaw lépp dafa yàq ñun ñu ngi nekk ci affaire des eh, problème boobu. boo boobu ngay béy fekkente amoo matériel sa béy bi naka la demee. doo dem du dem fen deuxième deuxième chose deuxième chose suñu indee gerte bi fekkente yeneen gerte yi dañu yàq soo jiwee sa gerte dañu jëg dañu soriante gisoo gisoo fi gisoo fi yëpp jiw bi doyul amuñu ay matériel matériel matériel normal lu ñu lu ñu in indi presque duñu jot fii balaa ñu koy dem wër ji fekkente matériel yi jeex na ñun amuñu fu ñu yaakaar budul béy bi suñu béy bi échappé yi ñu kay amuñu fu ñu dem su ñoree dañ koy def si sàkki après ñu ñu yóbbu ko si magasin ku ne ku ne nga gis ni mu jënd mu jënd fi gerte pos si poosam la la jóg génne xaalis bi mu dem jënd gerte. xam nga frais bi ngay def yëpp si tool bi ñu wax la deux cent deux cent deux cent soixante quinze loolu xam nga xam nga prix bi baaxul kilo bi baana baane suñu koy jaay leen baan baane dañ lañ toj ñu def ko def leen ki tiga dégg <laughs> ñu def ko si mbuus ñu jaay wala ñu yóbbu ko jaaw bi benn yoon prix bi baaxul dara même sa même saako gerte du egg kii du romb saa quinze mille xam nga prix bi baaxul mun nañu wax suñu soxla mais toujours euh, fii soo fekkee deful ko ñu euh, yéen li ñuy def fii tey bu ñu amee loolu toujours mun nañu wax suñu soxlaaj du noonu jigéen ñi wax nañ fii seen soxlaaj ak ñun yëpp ci affaire hôpital mais est que faj na nga wax tey sa soxla fajul suba nga waxaat ko est-ce que gannaaw suba da nga koy wax da nga jàpp ci yàlla rek béykat ci yàlla lay jàpp mais ni itam soo jàppale béykat dina ba affaire bi day yomb puisque jamono bi jamono bi sansé na de jamono bi sansé na Dakar kilo soble ci fu mu nii ñaata la ñun fii fii fii kilo soble benn ñaar téeméer lañ amuñu salaire billahi tey tey soo fekkee bugg am fii kilo soble dangay fay ñaar téeméer ak ñeent fuk fukk kana sant gouvernement bi aw jàppale uh, lumu mu tuddati sax bourse bourse familiale mais problème am nañ problème de jiw engrais machine yooyu yëpp so tereet bi ñëwee xaalis bi na teel a ñëw soglay dafa bari jamono day dox soo okel ubbe ñun fi ñuy lu ñuy jënde fi big ak uh, kii uh, lu mu kay kaye ak fourniture yëpp Dakar mooy am moyen ñun kana sant yàlla rek ñu teel a andi gerte boo teelee jëndi sa jiw doo tardé ñu teel a andi engrais boo bu ñu teelee andi engrais du ñu tardé jiw mbokk jiw gerte jiw ceeb yëpp nañu ko teel a andi bu teelee ñëw rek mais fu mu ne nii fu mu ne nii ñu ngi andi engrais engrais nag normalement boo jiwee rek nga tuur ci engrais bu loolu amul nag dafa tardé. man dañoo bëgg a nguur gi jàppale ñu am matériel bu doy pour mbéy bi mun a naat xam nga xam nga xam nga su dee mbéy bi naat na lépp dina réglé. mbéy bi mooy première priorité su su gerte gerte ger gerte si béy bi rek affaire bi dina dox normal mbéy bi mooy première priorité bi mbéy bi élevage bi. ñaari su nguur gi bàyyee ko rek affaire bi dara du baax hmm, nañu nguur gi ger suñu parce que si ñun ñun dëkk kaw-kaw yi surtout su ñëwee rek si ville yi rek lay yem ñu ja ñu tasar tasar matériel yi foofu kenn du xam ñun ah loolu la ñu ñaan nguur bi ñu jàppale.